mu ne baabul rabia li mooy buntu ñeenteel fi soomi si atay koor mu ne waxu moom koor al imsaaku mooy jàpp an shahwatayil batni si ñaari bànneexi ñaari bànneexi an shahwatayil batni wal farj ñaari bànneexi yi moo yaa moom bànneexu biir la wal farj yi ak bànneexu pay waaw nga fexe sa biir bu ci dugal benn ñam sa pay tamit bu ci mooy yàlla loolu mooy al imsaaku loolu mooy as sawm loolu nag nga def ko yow man bis kaamilen bu mat bit bu mat bit bu mat boo xamante ne sa biir da du ci dugg sa pay tamit doo ci mooy yàlla bi niyyati taqarrub ci yéene nga yéene ci jaamu yàlla jege ilallahi fa yàlla taala mu koy mi fi xayri zamani la xaydi ci lu dul jamonoy mbërëg wan ni faas ak jamonoy wasin wa ayaamil ayaad ak bisu feet yi waaw fan yi moom dafa araam ko woor jigéen jamono ji muy gis mbërëg dafa araam ci moom mu woor jamono ji muy gis wasin tamit dafa araam ci moom mu woor bisu feet yi tamit mooy tabaski ak korite dafa araam ko woor wala soom yi ñen la koor salaasatu arkaani ñetti fonk al awal bi ci njëkk al imsaaku mooy jàpp anil muftiraati ci yi yi nga xamante ne mooy tax mooy anil muftiraat ci doge yi nga xamante ne soo ko defee sa ko day yàq kal jimaay ni ki mbo booloo mooy sëy wa ixraajul mani ak génnee mani yu wal maju ak maju wal xayu ak waccu wa isaaril akli ak jotal lekk wa shurbi mbaa naan aw xayrima ma yu ndóog ñoom ñaar ilal xalq jëm ci put ga lépp loo xamante ne jàll na ba ak ci pot ga fu mu mën a aw minal fami moo xam ci gémmiñ la aw wala minal fami laal moo xam ci gémmiñ la la aw ak ci pot ga wala an fi mbaa ci bakkan wala uddi mbaa nopp wala ay ni mbaa bët waaw yàlla xew put mooy fii maa yi la tamit du fa àgg tamit day yàq day yàq sa koor mooy mooy asaaniyatu asaani ñaareel ba ci ñaareel faratay ko ñaareelu ponk yi anniyatu mooy yéene kon falaay seex du wér sawmun koor bi duudi haas bi dul yéene fardan moo xam kooru farata la aw nafilan mbaa kooru naafila koor gu mu mën a doon mënul wér te am te àndul yéene waaw yéene gi nag danga koy fanaanu way sharatu sharteef na fii haas yéene gi an takuna mu nekk mu ayyanatin bi lu ñu ràññee mooy lu ñu précisé bi an yéen yi mu yéene ada ab fadin joxe faratay ram ramadan faratay woor weeru ko faratay weeru koor loolu nga yéene masalan ci exemple mu bayyata mu bayyata mu bayyatatun muy lu ñu fanaanoo yéene gi tamit da nga koy fanaanoo nga naan fas yéene naa maa ngi fas yéene woor suba fanaanoo yéene gi kon tey nga war a woor suba tey ngay ngay yéen yéen gi bala ngaa tëdd waaw kon falaat sex du wér naxaaran naxaaran yéen bëccëg soo yéene si bëccëg yéen gi wérul waaw falaat sex du wér mun a jaazimatan yéene gi tamit mu nekk yéene gu dogu nga dogu ne suba di nga woor kon fa niyatul mutaraddidatun yéene guy deng deng nga xamante ne yéene woo bàyyi woo ngaan suba ceemaa woor sax ah suba lu mu mel rek situation demee rek mën na am woor mën na am bañ a woor yéene googu baateetul da ngay dogu ne suba damay woor loolu moom la ci génne kon fa niyatun mutaraddiyatun yéene guy déng déng baateetun neen la kon fa man na waa ku yéene laylata shakk guddi sikki sàkkal ñuy sikki sàkkal weer feeñ wala feeñul mais kenn amu ci lu leer nga yéene woor suba nga yéene si yaama garin woor suba in kaana donte nekk na min ramadan si weeru koor sax la ñuy di bis boobu doyu da koy fay ak saali si ñetteel bi jamono soomi mooy jamonoy koor woowu moom soo ko xamul min tuluuil fajri mi ngi dalee ci xaruk ci fenku xar fajar ak saadiq bay aji dëggu ila gurubi shamsi jëm ba soowu jant bi fi gayri ayaamil xadis su dul jamonoy jamonoy mbërëg wa nifaas ak jamonoy wasin wa yawmil fitri ak bisu korite wa yawmil naxri ak bisu tëbaski waaw baamu li nga waxoon wal yawmin ak ñaari bis baadahu ginnaawam waaw yow mu nax bi ndax tabaski ñetti fan la ñaari ñaari fan yi ci topp ci tabaski la bokk moo tax soo amul xar sax ñaari fan yi ci topp soo amee xar mën ko rey waaw moo tax mu ne wal yow mi nax ak bisu loj wal yow mi ak ñaari bis baadahu yu nekk ci ginnaawam li xëy mu tamatti ñeel kudul aj aju tamattu fekkee da ngay aju tamattu nag ah nga xamante ne ñaari fan yooyu soo tabaskee rek soo xëyee da ngay woor boobaa fan yooyu yow bokkul ci tabaski da nga koy woor waaw fasul yu saxabu soppeef na taqdimul fitri gaaw a dog wa taxiiru suxuuri ak yéex a xëdd yooyu ci moo ko wax yii nee na laa tazaalu ummati ala xayrin ma ta ma tuajjilu suxuura wa tuaxiru suxuura mu ne sama xeej bu njërmën na yàlla du dañ di dotteeku seen kaw li fekk ñu ngi gaaw a dog di yéex a xëdd wa kaful lisaani ak sag làmmiñ anil hadiyaani ci bébbantal wal faxsha wax ju ñaaw li ki noonu koor du xiifal dong mais sa cër yëpp faro woor da ngaa war a fekk sa làmmiñ doo ci ratal benn wax ju ban wala ay saaga wala wala wax ju ñaaw ñel xawli ci wax watar ko si waay ak bàyyi soccu bi rat bi ci soccu bu tooy li ki noonu war nga ut soccu boo xamante ne day nekk diggante bay na rat bi wal yaabis diggante tooy ak wow mu bañ a tooy xet wa tarkul mubalagati ak bañ a ak bàyyi jotal fil madmadati ci galaxndiku wala ci sax saraxndiku li ko noonu sooy jàpp soo bëgg a galaxndiku nànk ndax dañuy bañ ndox mi jàll sooy saraxndiku tamit nga saraxndiku nànk wa sawm yawmi arafa ak woo bisu arafa sopp nañ ko li gayril xaj ñel ko ajul dégg fekkee nekkoo màkka di aj bis boobu sopp nañ nga woor ko wa yawmi taasuwa ak bisu taasuwa mooy bisu ta mooy mooy neuvième jour bi waa ashura fukkeel fan bi ci weeru weeru muharram waaw mooy mooy korite dégg nga ndax yéen bi mooy kii mooy muharram mooy mooy ko mooy tamxarit tamxarit waaw ndax yéen bi ashura la daa woor wala ashura la daa woor non non taasu ala daa woor yéen bi taasu ala daa woor waaw yahut tamit yahut tamit taasu àll ndaa woor dañ ñaan ñu woor ñoom ñeent déet yahut tamit taasu yahut tamit taasu àll ndaa woor mooy bisu tam xel dag yent yi mu ne bisu tam xel bi ashura ashura la taasu yent bi ashura laa woor
taasuwaa la daan woor kii nu mu tudd sax yahud yi ñoom ñoo yahud yi ñoom ñoo am woor asura yonent bi mu leen laajoon tax ñuy woor asura ñoom ñoo wax ko ne liggéey ñu sant yàlla liggéey yàlla ni mu xeetoon yonent yàlla Moussa yàlla Moussa léegi nag foofu la yonent bi yéenee nag déwén ne dina woor asura bu ko fekkee bu ko fekkee dina woor asura ngir wute kii
bi asura la woor mu ne nag moom yàlla bàyyi ba déwén day na usu ila qaabilin la atumuna taasia wala ashura mu ne moom fi yàlla bàyyi ba déwén naa woor taasuwa ak ashura ngir wuuteeg yahud ñu yahud yi ashura da naa woor ñetti mu ne nag moom bu déwén dina si boole taasuwa juróom-ñetteel bi pour wuuteeg yahud mu ne wa salaatu ayaamin ak ñetti fan min kulli shahrin ci bés weer moo ayaamul biir weer bu nekk sopp na nga woor ñetti fan waaye Malick nee na nag nekkul ayaam bi dong nga mën a woor si nga mën a woor si weer ñetti fan yooyu jagleel nañ ko ayaamul biir saa saa yoo amee jot si koor si weer bi rek nañ ko woor ñetti fan daal ak foo ko mën a ak ak ak ak bis bu mën a tombeel waaw moo tax mu ne wala tax si deful jagleel ñetti fan yooyu seen ay yaay ayaamul biir mooy juróom-ñetteel bi mu ne walaa yu taxu jëful ci soomu yawmil jumaati woor bisu jumaa mun faydan mbir mi aji wécc ci bu wér waaye wuute am na si nag am nañu ne ajuma doom mënoo ko woor soo ko woor foofu da ngay woor sànni wayu kaw siweef na dawqul min ximas xorom wa majtuhu ak yàbbi ko kon soo ko yàbbi soo ko doy yàqu mas ko yàbbi kay moom lañu si mu ne wa muqaddamaatul jimaa'i ak du ak yi ñuy jiital ci booloo kal xubla ci niki fóonante kon sa soxna kon mubaashara ci ak dondoo ak sa soxna wa tafakkur ak xalaat jigéen wan nazar yu mustadaam ak xool gu sax ci sa jigéen rek di ko xool yéen xool yi dafa sim sim nañ ko wala mu laa abati ak foo foo sa soxna inu ulimat nem xamees na si asalaamatu mucc fekkee xam nga ne wóor na ni mën nga si mucc sa mën yu di si tuuru sa mën yu di si tuuru te doo ci jot ak moom ci foog nga foog moom kon boobaa doon ko sib wa illaa fekkee wóor wóor la ni dig si mucc nag kon naa fa yaxlu dina araam alaykum dalika loolu fekkee xamoo ne dig si mucc boobaa day araam mu ne walaa yaf timu di dog ak saayum aji woor al mutasawiu kay aji coobarew waaw li azimati ngir dogu aw xayriha wala dul dogu li azimati wenn xalafa nem giñ na donte giñ na ale si moom bi talaaqi salaat si ñetti bi talaaqi salaat yi si ñetti fas awil utki maa go- maa goreel mu ne xurnita tënjaleef ko illaa an yakun lu dafa nekk nag ahadu walidayhi kenn ci ñaari waajuram yi aw cheikhahu ma sëriñam mooy cheikhu tarbiya fekkee moo ko digal mu dog nag kon fa innahu nakum yutiuhu dina ko ci topp zaakaar ni nekk na ala wajhi rafati ci anamu yërmande fekkee dafa xool yërëm ko ansi mu ñeewante waajuram na ko dogal muy kooru coobarewu kon mbaa mun na dog mbaa sëriñam waxo waaw li adamati saw mi ngir taxoo gi mu taxoo koor gi fekkee loolu moo tax mu jëral ko ba ne ko dogal kon loolu baa mën na dog mun a man aftara ku dog na fii nahaar ramadan si bëccëgu weeru koor am dañ ci tey aw safar mbaa juum waja war na alisum xabaahu fayam waaw bëccëgu weeru koor soo si dogee moo xam yaa yaa ko tey wala teyoo ko da ngay fay bis boobu waaye nag wa samu dina bàkkaaru inkaani nekk na am dañ aji tey fekkee yaa ko tey rek da ngay bàkkaaru da nga am di nga am da ngay fay bis bi te di nga am bàkkaar da ngay kafaar aussi wa taj bi na war alaykum al kafaar du kafaar bi ahadi salaati ay ashyaa in ci benn ci ñetti mbir yi ala taxyiir yi ci tànn yaa tànn nag bu gën a woyof ci sa kaw nga def ko waje moom imma benn itaamu sittiina miskinan mu leela juróom benn sukki miskin kullu waaxidin képp kenn mu jox ko mudd mudd bi mudd yi ci muddam bi sallallahu alayhi wa sallam waxoo mu afdalu moo gën aw siyaamu shahrin mbaa moo ñaari weer mutataabi'an yu toftaloo aw itqu raqabatin mu'mina mbaa mu goreel jaamu jullit kaamilatan bu mat gayri mulafaqatin waaw mu bañ a nekk jaam boo xamante ne jaam mulafaqa la mooy mooy jaam boo xamante ne goreel genn wàll gi masalan waaw goreel genn wàll gi kon bu baax jaam boobu soo ko goreelee da nga ciy boole woor genn wàllu weer woor weer ndax jaam bi nga goreel matul kon mu la faqa mooy jaamu mu la faqa mooy mooy mu ne salimatan bu mucc nekk jaam bu mucc waaw si ay laa tusaxaqu defu ko laa tus laa tusaxaqu salimati min ayib waaw yamnau iza waaw mu ne laa tusaxaqu duyeyoo bi wajjihim ci benn anam waaw te nekk li mu si bëgg nam li mu nam rek mooy jàmm bi da nekk jàmm bu ma sëkk jàmm boo xamante ni kenn du ko bokk du nekk jàmm boo xam ne tamit danga gën a génn wàll bi bàyyi génn wàll bi waaw jàmm bu ma sëkk la waaw mu ne wa xaqi baabul xaamis li itikaaf mooy li itikaaf wa xaqiqatuhu dëgg-dëgg li itikaaf allubsu mooy sax fi masjid ci jàkke ji lil ibaadati ngir jaamu yàlla ala wajhin ci anam maxsus ñu ko jagleen loolu mooy itikaaf mooy sax si jàkke bi jaamu yàlla dong doo sax leneen wa aqalluhu li gën a néew si li itikaaf yow mu wala la mooy mooy fan wala la ak guddi waaw mooy ban mooy fan ma sëkk rek ndax guddi gi bëccëg bi soo leen boole moo tudd yow mu ne wa akbaluhu li gën a mat si li itikaaf nag ashat ayyaam mooy fukki fan moom la yéen ci daan li itikaafee waaw fukki fan yu mujj si weeru koor yéen ci daka daan tëju si jàkka ji di jaamu yàlla loolooy li itikaaf woo moom min nawaafil xayri mu bokk si ndollantal jiw yi wala woo ñel na ko arkaanu arbaa ñeenti ponk al awul bu njëkk bi al mu'takif mooy aji li itikaaf woo moom kullu muslim mooy bépp jullit mu mayisin bu ràññee mooy bu am xel kon fay seexu dina weex dina wér moom li itikaaf mi la mat ati si jigéen wasaw yi ak ndaw wala si sa ak jaam da nga nekk jullit rek te am xel asaali ñaareel bi asamu mooy koor kon falaay seex du wér moom li itikaaf bi du nii si lu dul si lu dul koor kon li itikaaf mënul wér te àndul koor asaalif ñetteel bi al mu'takafu fi ñuy place bi ñuy li itikaaf fii si moom nekkul fu la neex rek nga mën li itikaaf waaye fi ñuy li itikaaf waxuma almasjid mooy jàkk falaay seex kon li itikaaf bi wér fii gayrihi ci lu jàkk foo ko def fenn fu lu jàkka xalwa la tudd waaye tudd li'tikaaf arrabiu ñeenteel bi al istimraaru mooy sax ala amalin ci jëf maxsuusin lu ko jagleel mel ibadat ci jaamu yàlla waxumu asalaatu mooy julli wa qiraatul quran ak jàng alquran wa zikrullahi taala ak tudd yàlla bu koy wayu ko aussi wax ne lahu ñel ko an yafaal mu def gayra hadi salaat ci lu lu mooy ñett yi lu dul ñett yi simna la nga def donte jaamu yàlla sax simna la dégg julli jàng alxuraan tudd yàlla mimma ci li nga xam ne foofu moom ibadatun jaamu yàlla la kat ishiraal ni ki soxla woo bi li ilmi si xam-xam nga ne ko di di lii téere xam-xam yi demee noonu simnal wa kitaabatil kasiir ak bind gu bëri mel alxuraan si alxuraan simnal an yakuna te mu nekk imaaman raatiban imaam raatib loolu tamit simnal imaam raatib bëgg nga mu nga xam ne moo jiite salawaatu xam si ah bëgguñu mu mu li itikaaf waaye yàlla xam mu yëg tamit ala sataxin ci kaw ceeg aw mën naa def ci mbaa kaw sooree bi tamit si mel wa an yuazi mu yuazi mu jaale aw yoo xam ni mbaa muy ndokkeel nit faatu nga koy simnal nga dem di ko jaale bi mbaa nit am ngénte yi demee noonu am doom ñu koy ndoxee yi yooyu yëpp si mën ko si koy jax ci gàpp waaye yaataki fa gayra mag fii waaw waaye yaataki fa tamul yaatikaaf gayra mag fii te nekkul ku ku ku ku doylu koo xamante ne lépp lu ko war lu mu aajowoo si yóbbal ak koddaay ak li war njabootam yëpp génneegu ko nekk naan da ñëw si jàkk ñaan da yaatikaaf mu ne ko tamit ñu ngi def firndeel ko bala ngaa li itikaaf dangaa war a génne si dundu njaboot yi lépp teg ko yow tamit li la li nga war a aajo yëpp nga génne ko teg ko fay say bor yëpp ba nga xamante ne kenn am lenn lu mu lay soxla woo nga doo ko tëju nag looy def nga doo ko def wayu saxabu sofeef ne al itikaaf li itikaaf bi ramadan si ramadan kon mënu ko def si wéru ramadan si wéru weer koor mais si weer koor la gën a sof ndax ngeen di si daka daa def wayta akkalu dina feddaliko nag bi la asin axiiri fukki fan yu mujj yi bila ashir axiri min fukki fan yu mujj yi ndax yonent bi fukki fan yu mujj si weeru koor la daal i'tikaaf fasun yëpp dina yàqu dina yàqoo ak dina yàqoo al i'tikaaf li i'tikaaf bi fi'l kabaa'ir si jëf bàkkaar yu mag yi nga i'tikaaf soo defee bàkkaar yu mag yi day yàqu kër dinaa ni ki njaaloo wa suubil xamri ak naan sàngara wal kadib ak fen wal xasi ak xaste wa bi jinaa ak si booloo wa muqaddimaat yi ak yu ñu jiital si booloo kon ku ba ci mi ngi fël sa soxna léeg-léeg moo xam guddi aw naxaat ala wajhi shahwati si anam bànneex waaw nga foon ko te bànneex moo tax a jug mbaa nga jublu ko si waa day yàq fee bu fekkee na nga foon ngir rëcc gi seeg yooyu mën naa am mooy bi la xayit ak si mbërëk ñi ngi noon jigéen soon li itikaaf ba gis mbërëk li itikaaf bi day yàqu abil akil ak si lekk wa shurbi ak naan naxaari si bëccëg wa bil xuruj ak si génn mi la nasi si jàkka ji li gayri maishatin si dul dund aw li gayri xaajati insaan mbaa lu dul aajo doomu aadama li kii nga sax cabinet yi demee noonu loolu rek moo rëgg ne jàkka ji mbaa loo dundee